Serigne Touba Serigne Touba Serigne Touba Serigne Touba ay balay noo ngi lay siyaar ci darajaay sa daraja mbokki jullit yi nekk Tukuman ak Santiago di ñaari dëkk yoo xam ne ni yu ràññeeku la lool ci biir réew bu Argentine ci ay doomu sénégalais nekk fa di fa immigré amal nañu màggalug Touba 2018 ci anam yoo xam ni it yu mucc la dëppoo ak ni nga xamee ni ni la ko ku tedd ki sàkk woon ñu santale ko ko boroomam jàngal xuraan jàng xasaayit def ay bernde invité nañu mbokk yi nit ñu weex ñi bernde leen ba seen xol sedd waaye it invité autorité yi dal di amal ay waxtaan yoo xamee ni dafay jëme ci xamle ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba xaadim rasul waaye it def ay livre yoo xam ni it mbokk nasaraan yi dañ koy liir ngir mën ci daal di xam kan mooy eh, ku tedd ki noonu kon la ñu dundale bis bi ci Tukuman ak Santiago mbokk yi nga xam ni ñooy mbokk jullit yi fa nekk am ci ay taxawaay yu am solo Magal Touba 2018 Tukuman Touba Argentine TV na buur yàlla doli xéewal taaha wa Mustafa mahalaali wala saabi waa kër borom Tuuba ma jóg way ka way Mustafa sayid dalwara ba mu xëy def ko géej ak yàlla aski sëriñ Tuuba bu daan way rasuulillaahi sama sëriñ bu daan way rasuulillaahi sama sëriñ bu daan way rasuulillaahi aras jaayoo kanoom jibriilu naan ko jël nga la bàkkul sëriñ tuuba fa buur yàlla tànnee taaha muy sayyidal wara Seex Bamba jiitoo góor ñi doon maam borom tuuba ñu jiital ko fi duniyaa wa uxra wa barsaqu huna wa xadan mooy waaja ëskey sëriñ tuuba mu woolu ko bil koy ndàmbam ya moom doon ak mayam gannaaw abduhoo wa huwa muy jaaruhoo cey borom tuuba yonen baa ko jox wir doom minallaahi jaxsatan fa gànnaar ñu fab seen ruuya jébbal sëriñ Tuuba wa suriyati wa asaabi ridwanullahi taala alayhim ajmahin wa li arwaahi abaahina wa ummahatina wa masaayixina wa li arwaahi jamii almuslimina wa salaatu wa salaamu ala sayyidina wa mawlana muhammadin xaatimi nabiyina wa imaami almursalina subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala almursalina walhamdulillahi rabbil alamin